lan moo tax ñu bàyyi ba nguur gi jeex ñu jël suñu yoonu bopp dañuy wax ci Cheikh Tidiane gaajo ba pare kan mooy Cheikh Tidiane gaajo ak dayoom xëy na ñi intellectuels yi xam nañ ko mais ñu bëri xamuñu ko Cheikh Tidiane Gadio vice-président treizième législature bi assemblée nationale député Cheikh Tidiane Gadio ministre des affaires étrangères pendant presque dix ans Cheikh Tidiane gaajo ministre des affaires étrangères bu ma ko waxee képp kuy sénégalais te ràññee ci jamono jooju xam nga li mu liggéeyal Sénégal bu réalisation ak réussite Ablaye wadd amee tey Ablaye wadd tagg na ko gërëm gërëm na ko fépp bu demee ba yenn chef d'État yi di ko àbb naan ko président Abdoulaye wadd al ñu sa ministre des affaires étrangères pour deux jours kon kooku tey bu ñëwee jiite lu bëri ci réew mi ak ci bitim réew ak ci Afrique jubale africains yi muy ci Côte d'Ivoire accord de Bouaké 2002 fu guerre am nga ñëw dindi guerre ba mu sedd nit ñi doon dee nga stoppé loolu ba mu jeex accord xeexu Mauritanie bi waroon a am mu dakkal ko nga ñëw Soudan cat guerre ba amoon mu dakkal ko kooku tey jii nii buñ ko amee ci mim réew ci senegal xajul ci continuer rek ni day bootu effectivement bëgg na jiite réew waaye xulillaahu maalikal xulillahuma maalikal mulk tuutil mulka man tashaaw yàlla mooy joxe nguur ku mu ko soob bu ko joxee Macky Sall expertise am Macky Sall da koy soxla bu ko joxoon tey hmm, Pape Djibril wala Bougane wala keneen képp ku jiite Sénégal da ngaa soxla Cheikh Tidiane Gadio appareil d'État du nit ki du Macky Sall la doon jàppale mais Sénégal lay jàppale bu demee ba Macky jeexal nguuram dafay mën a taxawaat ni jox leen ma réew mi li ma mënal bitim réew mënal ko conseil ci Macky mënaloon ko Ablaye bi muy nekk ministre des affaires étrangères boo leen ma joxee réew mi ma defar Sénégal. looloo waral tey réew mi looloo waral tey lu tax laajoo looloo waral tey mu taxaw di laaj réew mi xam nga Macky Sall dañ ko fal benn mandat. Mm-hmm. mu ñëwaat laajaat sénégalais yi moom amul possibilité parce que nekkul ni bu dee da ngay laaj réew rek foo toll da ngay taxaw ni man sama sama titre sama liggéey laaj réew la laaj réew laaj réew di nga am moment boo xam ni yow sa bopp da ngay xam ni pare woo pour laaj réew mi bu ko defee ki fi nekk li nga am ci bagage intellectuel muy opposant muy parti au pouvoir képp ku jiite réew laa la wax Sénégal képp ku ko jiite da nga soxla expertise u Cheikh Tidiane Gadio sur le plan et sur les affaires étrangères et internationales internationales kooku noonu tey bu taxawee 2019 laaju réew bi mu continuer di soutenir Macky parce que nguuram dafa jàpp di jeexagul te mi ngi liggéey matalewul mais li mu yor ci bagage war na koo mën a jàppale ba mu matal mais bu jeexalee moo Macky Sall bu jeexalee ma nettali la benn anecdote pour expliquer li ma bëgg expliquer dama dama dugg benn tata un jour ci wax la Macky Sall ak Amadou Ba mii mu fi teg parce que tey jii nii Macky Sall bu jeexalee c'est pas dit que man ki ma bëgg a teg kooku la ñëpp di topp am na koo xamante ni xajul ci ginnaaw ci ginnaaw opposant wala ci ginnaaw keneen kooku noonu bu ko yàlla joxaatee nguur gi wala mu jox ko comme li ma la wax Déthié Fall wala mu jox ko comme comme comme Sonko wala kum ko mun ti jox da ngaa soxla expertise u Cheikh Tidiane Gadio waaye bu wuti jotee bu gisee ni war na wuti dina dem wuti d'accord